them onto deep play. Started from the bottom, sipping at the top, y'all. Have to go, but nothing to say. We on the way, we on the way. Say we on the way, yeah, we on the way. Started from the bottom, sipping at the. What's up? What's up? Sama gars yi bëgg naa leen lin la seen STV from Kër Massar gars yi maa ngi leen di bëggee l'autre jour ñu ngi woon. Kër Massar di tey seeti woon benn booy bu tàng nekk blanc di ko ne war naa leen underground foo nekk dinañ leen underground foo nekk dinañ ñëw sa route génn li nga yor tey ñu defaat benn parcours bu ndaw defaat un peu en avance dugg dibiteri waat beneen booy bu tàng dama ne booy parce que booy ci xel la mais grand sax laa koy wax ndax grand bind la wuraaj la liggéey la sawaay tàng na trop mu ngi Kër Massar mu ngi bay waaram mu ngi job mu ngi def lu dóob mooy loolu il fallait que nag instant bii nii ñu ñëw wan gars yi ki ñu seet si nii tey lan la capable ma bàyyi ko mu présenté wu ñu doog ci débat bi. chef ma Ousseynou <clears throat> ah? ah? waaw waaw ñoo ngi bëggee gars yëpp <clears throat> mbokk yi seetaan Sene TV xam nga di rafetlu tamit émission bi xam di leen dalal jàmm quoi jaajëf. Yeah. Wait, half killer, half killer, half boy killer from Kamasa, from Big Boys Record. Boo déggee Big Boys Record rek bro bi moo tax ñuy wax Big Boys Record half killer la dëkk Kamasa mais half ñu ginnaaw bi ñu la nuyoo dalal la yooyu ñu ngi laaj ñu bëgg a xam yow kañ nga débuté sa carrière musicale. yeah maa leen di fay xam nga di rafetlu tamit si émission bi quoi parce que yëg-yëg dafa dafa am solo quoi. pas dara mais xam nga doomu aadama mën nga mën nga fay nit mën nga def lépp mais nit boko yegge rek da lay quoi xam ak yeg yeg bi ni déplacement bi ñëw ba studio xam en def émission bi avant dara ma len si remercier quoi. bon ma maa ngi débuté musique en 2014 quoi carrément quoi parce que si laa doog a man esvini ma ngi commencer def musique parce que si laa filmer esvini ma ngi commencer di job di dem studio xam di perdre sama temps pour musique quoi mais avant boobu noonu doon naa ko dund genre comme life Boy, dund xam dem wër fi dem ça, fa xam affaire yoy noonu next quoi des fois wut ay beat affaire yoy quoi mais 2014 la film ni man instant nii kat ngi def musique yeah. en 2014 si nga commencé sentir que ni yow nii carrément war nga mën a artiste quoi. yeah. mais depuis 2014 ba léegi 2014 ba léegi ça fait presque 6 ans on peut dire 6 ans pourquoi pas xaaf dégguñu ko ci yenn affaire yi muy bonne fu ñuy dégg yenn gars yi quoi parce que six ans de carrière c'est pas quelque chose de léger. yeah loolu moom dëgg la quoi parce que laaj boobu noonu ñu koy laaj dafa bëri sax parce que mun naa ne émission bu ñu mënta def gars dañuy poser question boobu noonu quoi mais juste que man tamit toujours benn réponse la mooy ko live bi lu jot yomb quoi parce que sa dessin mënoo course ak moom quoi donc lépp xam nga step by step nga koy def parce que ñun ah, jobuñu pour job nii nii quoi parce que dañuy job musique dañuy liggéeyal pour musique quoi. dañuy bàyyi lepp xam nga ne musique bi di ci job jox akam ba am ci ben respect quoi kon leen lu des yeb daf manière professionnelle lañuy jobé quoi mo waral tarma bi mo waral bagage di doxé par code defa mo so quoi mais lepp après inshallah dina tagu ci yoon quoi. yeah lepp inshallah dina tagu ci yoon mi ngi ñew xaf ki le from comme ça from Big Voice Record mais xaf durant sa carrière yan projet nga tek ci sa carrière nga jot tek ci sa carrière. waaw voilà bon man maa ngi génne sama first mixtape en 2016 quoi mu ngi tuddoon the moment le moment quoi parce que ins boobu noonu gisoon naa ni que amoon na benn affaire bu doon nelaw si man bon mënoon naa ko yee quoi ma essayer def maximum nit munul dara mais essayer naa def lépp lu ma mun quoi génne projet bi ba mu ko génnee c'était en seize titres la woon dam ko doon jaay tu vois CD lañ doon jaay par CD CD 2000 defoon nañ vente yu bëri après jotoon nañ génn au niveau. national def nañ fa ay concert tu vois def nañ benn tour TV ak rajo tu vois joroon nañ si am benn connaissance tamit ak benn xam-xam bu ndaw comme que first projet la woon xam mais rëccuwuñ si dara quoi parce que am na lum ñu may quoi après loolu noonu ñu génne waa beneen projet en 2017 moo nekkoon gis-gis yu du benn c' était free download après bañ ko génnee tamit dañ ko maye noonu plateforme yi jot nañ ko fa jaay ko lu mooy lu mel ni que Kézit jotoon nañ ko fa posté ak ay plateforme yu ndaw musique bi ce genre de truc là après ñu jéemoo doxoon nañ ci ay link rajo tu vois télé affaire yooyu noonu après ceen waar gën a xamaat game bi nekkaat si quoi yee nekkaat ah. ñoo ko déggandoo jot na posté yenn yenn yenn business yi jot na ko dugg biir Kayz it dugg na ko ak yeneen yeneen plateforme boo leen ko bëggee follow dem leen foofu YouTube wala Sen STV foo leen dugg di ko gis projet yi nga jot a def yaa yaa ngi wax léegi léegi naan si sa si say si say wax yaa ngi naan dugal ngeen ko si plateforme yi est-ce que apporté na la benn somme bi yaa ngi yaa ngi kon am nga doo quoi. <laughs> waa sant yàlla quoi parce que fi kenn amul quoi te ku am ku ne dañ la dimbali mais tu vois la vie lépp xam da ngay fil li nga am li nga am tamit da koy suturoo parce que loo ñàkk am na ku nga ku nga ëppale xam nga loo amul tamit am na ku la ëpp ëppale quoi donc laa bi xeeb doole la rek ah. mais ñoo ngi si gis suñu bopp quoi parce que tamit nit mënoo ne si benn business xam nga def si ay yëx tu vois God la si ubbil xewul quoi boobaa da ngay xam ne lii nii xam nga du sa business quoi da ngay bàyyi ne si leneen néanmoins ñun affaire bi ñu ngi si bay waar tu vois bëriwuñu moo ni mais ñu dara parce que lépp lu ñu sol xam nga musique moo ñu ko may quoi fépp fu ñu toog xam nga musique moo ñu fa may quoi. comme foo rêve quoi. yaa xam tey musique moo tax nga xam ko koo xam hip moo tax nga xam ko tey mais est ce que gars yi ñu ngi ñëw di la contacter yenn sponsors yi yenn jenn maison de production yi est ce ñu ngi lay contacter. waaw waaw côté boobu noonu bon macha allah quoi ñu si am ay deal xam nga bu nekkee ay deal yu ndaw sax macha allah quoi parce que nit boo xeebul li nga am rek mun naa nit nice quoi yaa ngi firi quoi parce que récemment mooy son bu defoon ak KK 2000 bon. 18 bi c'était un featuring avec un artiste tu vois moom mi ngi nekkoon New York man maa ngi fii Sénégal tu vois donc link yooyu noonu ñu am bay dafa euh, ñu nekk New York ak fii Sénégal te am na ay grande yoo xam ne ñu ngi si kaw te amuñu link yooyu noonu donc ñun bu ñu newee si suuf percé gu ñu am link yooyu noonu ça veut dire que y a d'autres loo xam ne mi ngi si suuf quoi mais nekkul lépp la ñuy wax. tu vois mais nekkul tam lepp la ñuy noppi quoi mais affaire yi mi ngi nice quoi. yeah freedom mi ngi cool xaaf kilo la moom mais boo déggee xaaf booy kilo rek jàppal ni bandi bi la quoi mais lu waral turu xaaf boy killer bi. waaw waaw waaw turu xaaf booy <laughs> man khalifa la tudd tu vois. khalifa la tudd parce que mère bi khalifa la ma tuddee paa bi Modou la ma tuddee turu mère bi moy gina am doole moy khalifa bi xaaf en anglais c'est moitié khalifa bi ñu génnee ci xaa xaaf les boy bi en tant que jeune garçon en anglais boy tu vois nga boy bi non qui la sait pas qui la sait Khalifa xaaf boy Khalifa là tout parce que euh, récemment après lañ mujjee changer sunu non quoi parce que depuis 2000 2018 ba légui ni 19 après dañoo dindi qui la bi quoi c'est xaaf boy Khalifa parce que qui la bi bëggatuñ ko di utiliser quoi comme si que euh, des fois gars dañ may kóol ay gars ni dof business yo do ñëw réunion xama wala lutax tax li, li, man du ma booy ni dof du ma booy kenn man sama grand bopp laa ci wax moo tax après <clears throat> par la suite dañoo dindi woon kile bi sax def xalifa xaaf booy xalifa tuuku tuuku comme ni nga ko déggee man. yee xaaf booy grand boppam la. yee Diop rek mooy fay grand ci xel la ci Diop la ni ma ko waxee woon noonu tax sànq rek mais xaaf jot nga def ay clip vidéo. waaw waaw waaw maa ngi si SB 9 quoi jotoon naa génne Bamba laa njëkkoon a génne c'était en 2014 tu vois après Bamba ñu génne benn clip Come Back to Me après Come Back to Me xaw ma MLD ku la ma yëngal am na beneen clip love ce genre de truc là xaw ma waaw génne nañ ay bagages daal en ko am na neuf daal xam na mi ngi YouTube Xaaf Boy am na tamit récemment yu ñu jot a wàccee YouTube am na yu ñu jot a wàccee parce que ak job bi nii niveau bu mu toll nii. am na lu bëri loo xam dafa war a ñëw quoi te loolu noonu ak ah, lu jot a weesu warul ndroo quoi parce que doomu aadama xam bu nekkoon da ngay bëgg sa life lépp ñi koy waat kon nit doo dem ba màgg sa yaay di lay won sa photo liir ngay mer quoi di siisu tu vois parce que am na yenn yoo xam ba fa passé rek après dafa da nga war a tourner page bi xotti lépp naa si beneen wéy quoi mais moom quoi am ci àdduna quoi nit a xam nga mais am na clip yu naaj yu nekk YouTube yu yu yi di bëggee quoi instant am na ñoo xam ne ñu ngi naan mais kii est-ce que am na clip bu rafet est am na clip bu naaj gars yooyu noonu laa bëgg ñu dem YouTube ñu xool ñu xool clip boobu noonu ñu xool benn clip rek ci ci clip yi xaaf jot a tourné yi ñu xool ci benn dama leen di may NLD je pense. MLD MLD. yeah may MLD ñu get ko. <laughs> yeah xool ko ñëwaat léegi léegi. Yeah, I kill my man. AKA Zufa Solari Gun, AKA Khalifa, AKA Kaf Boy. That's one two nigga. Seven record music. Kid Masar, what's up? Boy Walla, what's up? I say, check. Malam Majam, Malam Majam, Malam Majam, Malam check maa si daanu kéem te kenn mësuma xuuf danga ma saw dam lay daj te dam la mës a baal ay boy yu cuune léegi ñooy toog di may classe am naa ko laata mooy yëgal ko si nice fokk fokk ren fly daaw fii la leen di fekk te waab dafa taade nigga uti leen heure du facebook du instagram te du youtube nigga waa baka sax xamuñ seen neem bi si nigga yéen a um sunu rab comme doomu jinne bu réer dam leen a classe ngeen koy ma nigga di may sot mbéjum kanam borom moo koy fayil lu muy ragal yàlla moo ko boo yéen a ma daw ma tax may bomb ren même damay sax léegi dañuy lekkante seen biir laa nekkoo sama son dafa weex fëkk fëkk respect am na boo yuy dóor seen père alkaati du bàyyi dóore su toppee jabaram dee man ak yéen fii ba yomal xiyaam su ma naree ruux yàlla na ma safara rey nitu neen ngeen man booy safara rek laay laal comme booy yu ma plan da ngeen ne yàgg si game bi moo tax defoo leen effet tel cas du foog si man ndax def na effet même wax police sax léegi dañuy bëggee son bi wàññi naa peew yi leen ngeen ni ba dee ni nga hip hop du leen fay amoo leen bës mel ni kubbi ren di daw saaga nday ñëpp jël kubbi ren bi daaw booy xamul dara ñooy toog fii di wax ay produit tegul tànk mel ni handicapé su leen naree may ko sama bopp du yomb mukk ndax audio du moroomu cere album baa nga ñëw non du cere sooy tóob mel ni kéemtaanu alaxira ñaata xiir sa fukk man benn nigga ku la xaaral xaaral yee ñaata xiir sa fukk man benn nigga ñoo ko filandoo ah MLD la gis ngeen clip bu rafet clip bu nice mu ngi cool ah. mais xaaf na ñoo def clip bi yaa clip bi collaboration la woon ak sama nigga tu vois gaa xam ne maa ak ñoom yàggoon nañu ko ñoom ñoo jooboon clip bi yee mais ba léegi link boobu mi ngi am ba léegi. yeah mi ngi am ba léegi link bi mi ngi am ba léegi mi ngi gën a naay sax yeah mais ñu ngi si tamit si yeneen link yoo xam ne tamit comme noonu la demee rek parce que artiste moom amul lu dul ay xam nga link quoi parce que mënoo tënk sa bopp si benn affaire quoi tout affaire dafa war a vague quoi mooy aar lu vague quoi. si aar lu vague moo tax tey xaaf ki la nekk ci musique bi ba tey nii mais man dama remarqué benn affaire seetaan ni xamuñu mais man am na lu ma jot a xam quoi nga xaaf yënguwul kese ci côté hip hop bi moom hip hop global ci lay yëngu quoi day yëngu ci musique bi en day yëngu wala ci beatmaker bi comment ça se fait nga cumuler deux yooyu nekk beatmaker en même temps nekkaale hip hop artiste. baaw bon man du ma du ma kese quoi France quoi parce que damay rap damay woy damay jazz damay reggae damay def lépp. damay beat damay mixer son damay def lépp quoi parce que loolu noonu amaana benn loo xam ne maa ko focus woon quoi maa ko doon jaamu comme jaamu laa wax parce que dama ko bëggoon dafa ma jaraloon sama parcours sama life lépp xama ma tëng ko pour business boobu yàlla ubbil ma si tuuti quoi xama ma si suturoo di si jéem ndànk-ndànk quoi te pour man mi ngi cool quoi ndànk-ndànk yee mais ci côté ingénieur de son bi ingénieur de son nga njëkk doon que que artiste wala artiste nga njëkk a doon que ingénieur de son. bon ingénieur de son la njëkk a doon c'est parce que ay jamonoy 2012 mun naa ne ingénieur de son kon loolu yàgg na parce que jamonoy 2012 may ngi doon son may ngi doon prise son doon naa prise du job ay son quoi mais nekkaguma woon euh, musicien quoi comme artiste quoi. yeah 2014 bi la. est-ce c'est pas parce que da nga nekk ingénieur de son di job affaire gis ni cool na rek nga ne xaaral ma dugg ci hip hop bi wala hip hop da si dugg ndax da nga ko mën wala engouement moo tax nga dugg ci genre. yeah loolu nekkul taalibeem mënoon nekk sëriñam quoi comprendre nga life yi. lépp loo def il faut nga tarbiyo ko quoi parce que il faut nga benn business boo si bëggee nekk boo si bëggee am dara il faut nga xas la ko nees yi bay si sa waar dem ba fil ne lii boo ko defee mën a nice nga def ko quoi après boo defee gars yi nañ bañ am lu ñuy wax quoi donte du ñàkk sax mais lu ñuy wax du du bëri quoi comme cuune nga wala affaire yooyu noonu mun naa ne même bu waree bëri mun na néew quoi moo taxoon mu demee noonu. si gars yi kenn mënu leen tere wax ah, job rek mooy fay boo jobul kenn du wax. jom moo tax ñuy wax ci yow mais xaaf gars yi ñu ngi naan xaaf kaana la xaaf dafa mën a ñor di xaaf xam nga yéen a gën a xam quoi mais lu waral coow boobu bruit boobu noonu xaaf dafa mën a ñor di xaaf kaana la genre. yeah yeah <laughs> loolu mënu si dara man yeah parce que góor si jëm boppam dañ koy sànni xeer yonent bi ñi ngay sànni xeer asuma doomu aadama simple duñ la sànni xeer man sama life sama life la tu vois dëgg la. mun na ne damay ñoo di mais man jàpp naa ni man ñoo di wu ma quoi parce que man baa Fall laa quoi mais cadre de musique sama job la tu vois dama bàyyi lépp di musique donc job boobu nag mënu ma si ñàkk fayda quoi mais cadre de nit ak nit. nit la quoi. yeah what's up. nit dong la xaaf ki la ñun xam nañ ko quoi bro bu cool la ndax du tey du hip hop moo ñu boolee même bu ñu hip hop boolee am na lu ñuy jot a dund quoi lu mu gàtt gàtt am na lu jot a dund te xam nañ ko bu baax bro bu cool la bro bu la ñu jaaree foofu noonu ci ci loolu noonu ñu dem seetaanaat benn clip ñu ñëwaat continuer ak xaaf kilo la from big boys encore autant pour moi xaaf booy xalifa yeah. Who's there? Beat Voice Music. Akila Mamel. AKA Zafa Salari Gun. AKA Khalifa Khaboy. Alaji Bada, what's up? Kermasar, what's up? Beat Voice Coming Soon, what's up? I said, check. Yeah jàpp Juli flow ñoo ngi hit may job sama baat ñambi daat foog ñëpp foog la wes xamoo dara no siisu juddu woo da nga juddu maay xaalis xale xaalis wala air faj baalis ama bës da nga teel a fay xoj sa life, come fuck jaay fii fi mafine, fi mafine. number this, my merci yàgg baax no merci foog ma siiw foog merci dawal trop investis dawal trop investis bu leen ma yëngal waay bu leen ma bougé wuñu dañuy teel a off jabu xewi comme yëre doof duma diib duma ngaa ka sama axlu jàmm dong la no pain no gain aw ma xarit no gain sant got sant got seen life laa def kot boycott boycott wiri wiri jaari ndaari amul benn dëma rapport bu ma mën a foog yoon bi dafa gudd ma jël sama yoonu bopp ni nga maa ngi def lu ma soog saw ma leen ndànk dam leen a day seen papa laa si bépp côté jël sama temps di foog kenn par kenn ba seen biiru mairie ni ga eh, bu la ma yëngal ñooy sa baay <laughs> bu leen ma yëngal waay bu leen ma bu leen ma bu leen ma yëngal waay bu leen ma yëngal waay bu leen ma bu leen ma bu leen ma yëngal waay bu leen ma yëngal waay waaw ñoo filando ah, clip bu rafet clip bu nice affaire bu cool mi ngi noonu xaaf booy xalifa from Kër Moussa Beat Voice Record mais xaaf tey dañoo ñëw seet si le Beat Voice Record Billboy Record man bi ma koy dégg je crois que ne une maison de production bu candela, la affaire pour deux, bu ponkal mais Billboy Record malgré ni ñu ko fekkee. xewuñu ko luxe quoi c'est quelque chose de luxe comment ça se fait yow affaire bi sa affaire bopp la wala. yeah Voice, nan la demee. yeah yeah dama siy sawar tontu meen tu vois parce que dans ngaa ni une maison de production son wala affaire bu ngande mais luxe tu vois bon Beat Voice Record gars yi ñu koy dégg ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp du dara lu dul ko mot anglais la le mot beat comme instrument le mot voice comme voix record comme enregistrement tout court studio bi moo tax day record enregistrement beat kese matériel yo no digay def mom la utiliser Beat Voice Record bon du man maa ko moom collaboration la ak samay néeg sama manager ak sama quelque copains amis d'enfance yoo xam ne yàgg nañu quoi ñun ñoo euh, manko teg Beat Voice Record parce que tour bi depuis 2012 ba léegi ça fonctionne quoi kon jamono jooju noonu man commencé ma rap sax te mu ngi fonctionné quoi ñu bëri dañuy dégg tour bi Beat Voice Record Beat Voice Record mais du dara lu dul instrument ak voix enregistrement boo ñëwee da nga fiy fekk after mooy loolu noonu quoi yeah what's up Beat Voice Record mais yaa ngi seen négoce yéen a def collaboration boobu noonu former Beat Voice Record mais yow en tant que personnalité artistique yow ce staff ak a collaboration y a une personnalité Oui, wala. parce que euh, côté manage manage manager bi tu vois côté affaire de d'enfance la tu vois ba le dogal dans musique quoi côté staff musique la quoi parce que musique bi moi tax quoi comme musique la musique musique chill pousse quoi yeah. musique bi mu ngi chill ah Rap Boy musique bi mu ngi chill management bi mu ngi chill lépp mu ngi nice ah Beat Boys yéen a ko gisandoo mu ngi nii job rek la job rek moo tax ngeen di dégg Beat Boys nekkul question de dara motage yi am na fi lépp am na fi xel bi mu ngi fi job job mooy fay te ku fi ñëw di nga xam ni gars yi dañuy boob dañuy job lu rafet lu nice mais xaf projet yi ñëw ci kanam yan projet la projet yi nga xam ne moom moo war moom la ñuy war a xaar xalif xaar ci Khalifa quoi xaar booy Khalifa. yan projet lañ war a xaar ci yow. yeah récemment nii maa ngi maa ngi si projet album pré album quoi lépp pare na promo bi moo des ak date de sortie quoi xool nuñ koy tege si marché bi nekk na projet boo xam ne c'est international quoi parce que ku ñeme dañ laa dee quoi mais tënkuwul si benn musique te mun naa ni ndelawuma mandiwuma dara jàpp ma meen. mais amul ci Sénégal mosuñ am projet bu mel noonu quoi parce que on a mis du temps pour job affaire bu mel noonu tey la nelaw yi pour job affaire bu mel noonu yalla dogal na nag macha job nañ lepp dessul ludul promo bi après joxe date gars like quoi am na musique yep yep yep lepp loy xalat comme musique def nañ ko ci projet bi quoi. amul amul frontière musicale projet bi amna lepp lépp wax ñu ngi koy wéet ñu ngi avec impatience quoi ñu ngi koy mais ku ne album wax wax job bu métti ku ne album wax côté financier mais xaf job du ma du ma la laaj question ci job bi parce que job xam naa da ngay job mais côté financier yow album bi yaa financier financé sa bopp wala da nga am ay ñu lay jàppale wala da nga am ay sponsor yu lay yu sa côté quoi. waaw pré album bi après euh, album bi ñu ngi koy job pare na comme lu la sànq. lenn moo si nekk mooy am nay collaboration sponsors yi ñu ngi euh, dox link boobu noonu quoi paregul moo tax yi affaire bi date bi génnagul quoi mais bu nekkee cadre de son ak yenn job yi loolu dee na bu yàggu quoi mais côté sponsors yi ñu ngi dox link yooyu noonu am na tamit au niveau euh, plateforme yoo xam ne war nañ ko job ak ñoom au niveau vente internationale am nañ insbi plus de quatre plateformes yoo xam ne kale na quoi yoo xam ne ñoom lañ signé contrat boobu noonu quoi pour vente bi internationale quoi ak plateforme boo xam ne moo koy jaay fii au niveau de Sénégal quoi par code lay nekk ay cadre quoi. ñoo ko déggandoo waaw mais mais man sañuma laaj de mais est-ce que mën nañu am ay benn 30 secondes ci ci ci forme de musique yi nekk ci album bi quoi en exclu exclusivité fii nii ci seen STV xam naa ne di yomb mais en tant que <laughs> en tant que copain man. man boobu quoi. est comme comme genre. ñu am benn genre musique boo. xam voix off quoi. c'est différent ak li ñu gis fi ni yeah pour wa mon na mon naa leen may ben son ngeen deglu ngeen xol wa lolu ñu xol ben son ni après ngeen xol mo lolu xam jam leen ko yeah what's up man uh, Wow, so guys, ni mo rin mo mo sa next TV mo ang mga I do not. Just not. cosaan sey du caaxaan fonkal sa borom kër ngoon jot na ñi defal la sunuy aadama xapp la suuf jël sa yëre yi fol waawa jombaajo jigéenu pullo yeah, cool la affaire bu nice. Jokalante ñoo ko déggandoo en exclusivité. am fii Sen STV pré album ko am ñu rek ko am affaire boobu <laughs> bi rek. moo ko titre mi ngi tudd Jambaajo quoi genre mooy seet tu vois mooy seet quoi comme seet quoi léegi maa ngi si ngi ko def featuring bi ak benn artiste quoi euh, boo xam ne am na euh, tur fële nu mu tudd Fouta quoi mi ngi tudd Roi Lénol tu vois maa def ak moom featuring bi quoi son bi mi ngi tudd Seet quoi pël la quoi ma maa ngi utiliser terme bi aada bi en wolof moom mu utiliser aada bi en kii nii nu mu tudd pël quoi. jombaajo bi bon afro pop la quoi tu vois afro pop la roulant quatre temps la quoi. amul frontière ci musique fu ko neex lay génn amul frontière ci musique day def afro day def hip hop trap day def lépp quoi classique foo ko laal daf la fay wuyu mais am na ñoo naan est-ce que xaaf mën na door ci trap wala xaaf est-ce que mën na classique est-ce que gars yooyu noonu mën nga leen may loo xam ne tey jii dootuñu critiquer wala dootuñu am benn arrière pensée ci xaaf côté musical. waaw waaw loolu du problème. yen mo loolu non samay oji ngeen boo leen bëggee mun naa leen ko may ba sa saf saap rek na naa may mayaat une seconde xoma ni deglu déglu bi dam si projet bi tamit la bokk quoi mi ngi tudd Saltel Man Kaçan moni mo gën nga may sànni pek خصنا بدي تبلدي ما يقولوا يا يا يا الجو نساء نخدم نقلب دوما تلف ومجيك فم بغيك لاك لاك يا يلا ما يمقاد النبي xaas bëri du fi na fis nitu guddi mënul leer Lucifer amul sama jëg yaay sonu mun ma torox yan ko bi tadi pëna ay risque rek laa mës Move my dagger fa dagg life. i life am na i am God. I góor ay unicorn. I junni compte ati naaw may gën a ndóol saaj boo xoolee si sama poos jabar war na sas wàccu ma i ba lépp la nar a I assez check S'appelle moi depuis un Yeah, it's that. Eh, Sandel Mané ñoom moom loolu wax Sandel Mané fii doo leen fi am. Um, tous mooy loolu xaaf booy xalifa moo fi nekk doo leen fi am um, dara. sound bi nii daa am um, ci lu may yóbbu quoi. ci ci ci yow si sa sa rapport yow ak ak ak artiste yu Kër Masar yi. sa link yow ak artiste yu Kër Masar yi nan la demee. waaw waaw link bi nice xam nga lépp nice tu vois just ko sound bi uh, mi ngi tudd Sandel Mané Sandel Mané du ñu fi am dara mais. si biir sound bi quoi xam nga maa yaa ngi dégg ma ne la yàlla may ma àdduna bi xaalis bu bëri bu fi nëb fis ñu di guddi mënul leer lu si fer amul sama njëg yaay sonn kon mun ma torox quoi comprendre nga. genre day daa jël lu bëri tënk ko quoi mu nekk saltel quoi nekkul affaire boo xam ne dafa ñëw rek ñu tegee ko nii quoi vague quoi parce que même ubbi son bi yaa ngi dégg ma naan xaw ma ah, mooy loolu noon quoi son yi fois mooy lool yaa ma gën a nëw dañ koy bind si kóol rek en ko. <laughs> mais ku dégg sound bi danaan peut-être bu bu boo amul entendement bu xóot danga naan xaaf kon est-ce que amul benn benn mécontentement avec ak artistes Kër Massar yi amoo ci artistes yoo xam ne yaa ngi ñoom ça de part quoi. waaw mais nice ah nice yeah. non parce que xam nga euh, man moom gars yi maa ngi ñoom quoi mooy lool noonu quoi samay frère lañ xam nga fil naa leen fil nañ moo quoi donte des ay biif du ñàkk ay pique. man dama jàpp ne jamono juñ toll nii quoi du maak ñoom ko yee du maak ñoom bàyyi picc yi duñ naawandoo prison yi man. yeah man. yeah picc yi duñu naawandoo prison yi xam lan lay séntu kon ci loolu lan ngay séntu yow. waaw ko nu mu la ko waxee woon sànq quoi ñun amuñu life man ñun dañuy job tirise wuñu dañuy job chaque jour dañuy job dañuy bàyyi suñu nelaw di job yeewu di job nekk si isu bu ñu entraîné wul ñu ngi fii di job. bokkuñu koo xam ne xam nga am na benn temps bu ndaw di perdre am na benn son maa ngi koy wax sax naan la naan gars yi jaamuñu back down musique self made genre ñun dañoo nekk di rap jël suñu lépp def ko si rap bi lijjantiwuñ si leneen ak leneen kon kooku noonu lu wolof naan kuy xëy di liggéey ak kuy tëdd nelaw weer bu jotee mënuñu bokk salaire loolu demee quoi. te noonu la demee kuy xëy di wóor ak koo xam ne day tëdd di nelaw weer bu deewee dañu bokk salaire xaaf day tëdd di wóor day tëju fii Billboard di joob di joob lu métti mu ngi joob lu grave après album bi mu ngi ñëw ngeen kal ko mu ngi ñëw next time rek day ñëw léegi léegi date bi nag génnagul loolu noonu man rek maa ko am seen STV rek ñun ñoo am exclusivité boobu noonu mais xaaf gars yi ñëw nañ tey seet si la. léegi bëggoon nañ xam. à part projet yi nii di waaj a ñëw est-ce que xaar projet yi envisagé na am na si ay featuring ci projet yi est-ce que. bon projet bi nag boo seetloo quoi boo gisee lu tax mu tudd sas le moo sas quoi comme tey jii nii ma ni la sas naa la benn affaire mais sas bi daam lu muy wundu quoi am na lu muy tekki sas boobu noonu daa am lu bëri lu muy tekki quoi moo tax talent artiste bi moo si moo si gën a jaayu carrément quoi parce que son yëpp boo seetloo dam si wone musique. jël son yu bëri man kese maa ko nekk bëriwul ay featuring j'espère que ay 2 3 featuring la am yeneen son yëpp maa ko def 20 titres la quoi pré-album bi 20 titres la quoi complet. 20 titres job la rek Fall. <laughs> mais xanaa affaire yi depuis 2005 nga ko ko. nothing man just job la rek xam nga ku ku génnee benn projet 2016. 2017 2020 allah nga bëgg génnee beneen te boobu ba léegi récemment gars yi ma flow ñu bëri xam nañu chaque mois damay génnee dara. jox sama fans quoi même bu nekkee deux personnes chaque mois dama leen di jox benn bonus te bonus yoy ñun yépp mu naa ne dugguñ fi quoi donc ko lolu job mo la kay may quoi parce que xel bu tëju mu la may lolu non quoi kon non la rek yaa ma gën a man. mais mais ak projet yi nga def yëpp ak ak ak job yi nga wax fi ni yëpp projet yi ñu gel depuis 2016 ya nga def ay maxi mixtape pourquoi pas xam dégguñu la au niveau international au niveau national sax yenn parce que am na secteur yooyu dugg boo ne xaaf gaay yi mën nañ. posé wu la question kii xaaf. Keur Massar moom waxuma ko quoi. parce que Keur Massar boo nee xaaf. ñi nga xam ne ñu ngi dund hip hop xam nañ xaaf booy. mais boo génnee lu tax gars yi fëlawuñ foofu noonu xaaf. yaa yaa yaa bon loolu noonu comme ni nga ko waxee quoi nee naa la life bi daal xam nga mooy loolu comme ni nga ko gisee rek noonu la demee quoi man maa ngi def lépp loo xam ne maa ngi ko war a def benn am naa respect tu vois. autour de grande yenn grande yu bëri am naa seen biir respect parce que loolu noonu nelaw may ma ko meen maa ko trois tu vois ba meeg ko quoi tu vois côté nag en génn au niveau national wala international loolu noonu yëpp man dama jàppoon ni lu jot yomb lu jotul du yomb quoi moo tax mosuma xadi benn yoon quoi parce que bu nekkoon xadi naa ba léegi nii maa ngi woon si yeneen business quoi mais tey laa gën a jàpp musique quoi tey laa gën a gëm ne laa gën a mën lekk xaalis musique man gëm-gëm mooy lépp lépp lu waay nekk nga koy gëm xëcc bu daggul day dégg loolu la gars yi wax nga gëm sa job gëm li ngay def gëm sa bopp mooy premier des choses bay ci sa weeru tànk boo gëmee sa bopp rek tôt ou tard da fay te xaaf gëm na boppam ñu koy ñaanal yoon bu sedd affaire yi pré bi bu ñëwee xam nga def benn bon au niveau international affaire yi nice quoi mais xaaf Big Voice record Bill Voice Record am na artistes yu mag yu fi signé wala ay underground lañ nga yor comme artiste. bon Bill Voice Record mun naa ne euh, amul ay artistes sax yu fi signé quoi yeah amul ay artistes yu fi signé collaboration lañ nekk di joobale ak quelques artistes quoi te collaboration boobu noonu yàggoon na tu vois yàgg nañ joobee noonu quoi parce que man mi en tant que Khalifa tu vois damay joob ak ay artistes yu mag damay joob ak yeneen studio yi tu vois. mooy loolu noonu ko mais inge ni temps bi mayatuma ko parce que dama ne si projet nii quoi mais pas loolu noonu Beat Voice dañuy joobal ak gars yi des fois dañuy am ay projet yoo xam koy jox ñu indi ko fii mixé ko yee mooy loolu xaaf booy ñu ko doon dégg des fois ñu doon dégg xaaf booy Renfly des fois ñu dégg ay sound xaaf booy yoo xam ni Mass 36 ngay gis ci logo bi yaa ngi job ak ñoom ba léegi wala yee yee yee link boobu noonu amatul man tu vois amatul quoi yeah parce que live la xam nga nekkul lépp la ñuy jàllale man mais anyway amatul man yeah. si moom la sama gars ñu dëgg si tànk ah noonu la demee Bill Boy Sinkor ah mooy loolu. yeah day job ak boppam ah charité ordonnée commence par soi boo yoree sa say matos yor sa jiwoo xam nga xam-xam baa ngi fi toggal nga bokk. waaw taw taar day ñëw te xaaf loolu la nekk di dund quoi xaaf émission bi neex na xam nga. balaa dara man dama bëgg ñu am benn 30 secondes boo xam ni nga may ñu benn impro <laughs> voice xaaf. voice xaaf ci biir ci yi dafa grave quoi voice bi lañ bëgg am intégralement nii. yeah yeah bang bang bang xam nga impro maa ngi nii di rap moi je suis pas un parce que je suis négro en plus j'ai un négro bang bang. <laughs> Nyawadega no Alfonso Bugrao mi ngi noonu Cowboy Killer. yaa Ya, de. balaa ñuy pare émission bi lan ngay wax gars yi lan Ya, ya. ak projet yi. bien bien gars ñi xaar ko xam bientôt incha allah album sas mi ngi ñëw incha premier uh, en février di am um, clip tolluwaay uh, extrait de pré album sas avant tout maa ngi remercier tamit seen SN bii nii xam nga di kontaan di rafetlu tamit si yéen quoi. jaajëf. mais ku bëgg a follow Xaaf Booy di dégg Xaaf Booy def ba am ko. waaw Xaaf Khalifa maa ngi si Twitter Snap tu Instagram Facebook YouTube même tour Xaaf Booy Khalifa maa ngi si plateforme yi ay Amazon iTunes Deezer 500 foo dugg rek ma tapel loolu rek Xaaf Khalifa tu vois yeah. boo ko bëggee follow Xaaf Khalifa mu ngi Instagram mu ngi Twitter mu ngi Facebook. WhatsApp mu ngi fépp boo ko bëggee film di nga dem foofu nga am ko fa carrément seen STV la ah, waxoon naa leen ko tôt ou tard foo nekk foo nekk artiste foo nekk tôt ou tard dañuy ñëw dañuy ñëw seet si la dañuy ñëw génne li ngay job xam nga xool li ngay li ngay liggéey est-ce que mu ngi nice est-ce mu ngi cool parce que affaire yi ñun bu nice rek dañuy ñëw dañu la koy wax bu nice dañuy doo ñu gis quoi parce que ak lu mu dee dee ñu ngi dund musique bi gëm nañ ko xam nañ musique lu muy fay xam nañ musique bu nice mooy loolu moo taxoon tey ñu seet si woon tey xaaf booy xalifa from Beat Boys Music comme ni ma leen ko waxee woon sànq di leen jox beneen rendez-vous ci beneen émission ci beneen artiste bu gën a tàng li may tëjee rek bàyyi xaaf daaw benn sound ñu tëjee ko ak yeneen i bagage quoi ñu ngi ñëwaat. yeah what's up man. yeah yàlla may ma àdduna bi xaalis bëri du fi nëb fis nit guddi mënu leer. Lucifer amul sama njël yaay sonn mun ma torox yoon bu gudd tàkki pënd ay risque rek laa mës a jël mus ma dagg pes sama life aw ma xaalis am naa got ay faux chiffre junni compte ati dinaaw may gën a ndóol salit bu xone si sama pos jabar war ma sas wàccu ma album bi lépp la nar a faj assez on the way, we on the way. Have to do but nothing to say. Doctor, doctor, want to deep play. Started from the bottom.